Thank you. ñu ngi sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant seriñ Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi lool kàttanal ko wéral ko dëgëral ko te dimbali ko ci liggéey bu tedd bi muy liggéeyal Serigne bi di eh, yëkkati kàddu ci jataay bi ci kanamu kilifa yu tedd yi jiital ci Serigne Abibullahi Mbacke Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadr ak Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Abibou ak eh, Serigne Moutala Lo kilifa yi fi teew yëpp. di sant yàlla bu baax ci jataay bii ginnaaw bi yàlla dogalee Touba ca kanam jot ndigal mu jóge ci Cheikh Mahamadul Muntaqa jaar ci Serigne Abibu ngir diggante bii euh, lëndëm gu mu lëndëmoon mu joxe ndigal ci ne nañ ko leeral bi ndigal li ak nag yoon yi ñu baaxoo jaar jaar nañ ca te mooy tàmbalee ko ci wax ak ñi nga xam ne ñoom lañu ñu seqal dëkk bi te ñu féete ci wet googu di waa commune bi Euh, te yàlla dogal ki nga xam ne mooy jiite lu jëm ci wàllu éclairage public di sëñ Mourtala Lo mi ngi fi te biñ tàmbalee liggéey ba léegi ñu ngi koy ànd ak moom ak kilifaam sëriñ Abdou Lahad foofu la ñu tàmbalee ñoom bi ñu waxtaanee ñoom ba noppi ñu doog a jublu ci def lu ay étude ci ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ci wet gi ñu def études yi nga xam ne moo ci war a aju ba génne dimensionnement yi wax alignement yi ak espacement yi nga xam ne moom la war a am diggante lampe bu nekk morom ja ak poto lampe bi la war a mel. wax nan la war a guddee nan la war a tànk bi nu war a yaatoo massif bi koy téye nan la war a mel yooy yëpp bi ñu defee études ba noppi ñu wuti nag entreprise yoo xam ne ñoom seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu éclairage public ak électricité ñu yàlla dogal ñuy ay taalibe bokk ci kër gi jaayante daanaka xaw nañ koo jaayante ndax tuuti rek la leen Touba ca kanam mosal ñu jiite nag li nga xam ne mooy aju ci wàllu parti eh, technique bi mën nañ cee tudd ku mel ne Coulibaly mi nga xam ne ñu bari xam nañ ko ci Sénégal ak ak ak ak Baye Ndaw mi nga xam ne moom ci wàllu éclairage public xam na ci lu bare bari ci loolu nag ci la ñu jógee kon tàmbalee ko ci wuti poto yi poto yi ñu ngi ko commandé ci an entreprise bu nekk Tunisie mu toll ci cent 190 poto poto yi mi ngi guddee daanaka 9 mètres 9 mètres yu mag 20 centimètres la xëy na sax bu tegoo ci kaw massif bi dana ëpp dana mat 10 mètres ci yenn zones yi nga xam ne dafay xaw a gudd wala mu xaw a gàtt massif yi tamit ñu wut ñoo xam ne mën nañ koo liggéey ci wàllu génie civil ñu liggéey ko ci anam bi gën a dëppoo ak jamono câble yi li nga xam ne moom la études yi génnee ñu dem jëndi ko wut nag ñoo xam ne ñooy taxaw main d'œuvre bi loolu yëpp nag sëñ Xaarim Dieng mii moo ko doon moo doon coordonné liggéey boobu Touba ca kanam dénk ko mu taxaw fi di def liggéey boobu diirub li nga xam ne ñi ngi ñi ngi ci di ko liggéey liggéeyee plan yi ba noppi loolu da nga koy jël yóbbu ko rek am na lu ñuy wax grand compte da ngay dem ñu viseel la ko wane ne accepté nañ li nga def liggéey boobu def nañ ko euh, diggante poto ak morom ji bu nekk 30 la Euh, liggéey bi tamit bi ñu bi ñu bi ñu xayma nombre de poteaux yi nga xam ne monté nañ ko mu wër fii 167 lay tollool li commencé ci kër sëñ Sidi Maxtaar gi moo moo moo jaayante woon dédouanement bi fayoon mooy li may faral mooy li may faral di wax ne liggéeyu Touba ca kanam léeg-léeg montant bi ñuy annoncé ak ak bi ñuy kii dana ko ëpp xëy na loolu kilifa yi dana ci ñëw sax gën a gën sant ñi nga xam ne jàpp nañ ci sëñ Lamine Sarr douane moo moo jaayante woon dédouanement bi. ñu leen di nuyu du sëriñ Abibou di kilifa Touba kanam di fam nuyoo bi di ko teg ci loxol Cheikh Mamadou Bassir mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mamadou Muntaxa te yàlla dogal ndigal lii bi ko Cheikh Mamadou di jox Touba ci kanam Cheikh Mamadou Bassir mi la ko jaaweloon def tawfeex ba Touba ci kanam def ko ak Cheikh Mamadou Muntaxa yebalaat Cheikh Mamadou Bassir mu ñëw ngir ubbi ko ñu taal lamp yi tàmm ko niitoo kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ci tuubu Serigne Habib ak Touba Touba ci kanam gépp di sant Cheikh Mamadou muntaha bu baax ci ci itteem waaye ak bàyyi xelam Touba ca kanam di ñaan suñu doom mu yàggal ko fi ba lépp lu mu yéene defal sëñ Touba ji mu def ko na mu ko bëgg dan ànd kook moom ci bëgg sëñ Touba lu mu gudd gudd ci càmm cant lay tàmbalee yam ci cant cant gi nag sëñ Touba mi nu yàlla boole defal defal nu tawfeex nu nu nu nu ne ci gannaawam ci moom moom muy muy lépp tey ëllëg moom lañ koy seeraloo te di gën a yeesal suñu jaayante sëñ neen si semoon mu taxaw sëñ bu nee na moo waaj Touba ci kanam jekk nañ ndigal lii daane nañ ko waaye ñu ngi la leneen lu dikk fas nañ ko yéene def dara tax noo jug lu dul liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi yàlla nañ ci eh, daje ngërëmu sëñ Tuubaa sëñ suñ doom yàggal ko fi jërë ngeen jëf ci ndigalul sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne ci ndigalam la fi teewe muy kaddu yu nuyoo ak cant ak ngërëm muy kaddu yu nuyoo ak yooyu cant ak yooyu ngërëm di ko yóbbante waa daayira Touba ci kanam yëpp. di ko nag yóbbante waa daayira Touba ci kanam bépp. ci njiitalu Serigne Abibou Mbacke. ci njiitul Serigne Abibou Mbacke. mom Cheikh mamadou Fadal mom mi nga xamne moy sen jeuwriñ ak Serigne Abdoul Ahad mbake ak Serigne Abdoul Ahad mbake mi nga xamne suñu wayjura mi nga xamne suñu wayjura ak ñu top ci sen ginaaw ak ñu top ci sen ginaaw ñep te buñ ci tuddé nak Serigne Abdou Fatah gay mu yóbbaale len kon Serigne bi kon Serigne bi Cheikh mamadou Mountakha neena Cheikh mamadou Mountakha neena mi ngi lay sant bu baax mi ngi lay sant bu baax mi ngi len di sant bu baax di len gërëm ci jëf ju mag ji ci jëf ju mag ji nga xam ne itteel na ko. nga xam ne itteel na ko lool. loo xam ne moo ko waroon def moom ci boppam. muy loo xam ne moo ko waroon a def moom ci boppam. waaye ko ca. waaye ngeen gàttandu ko ca. yàlla def man dogal na it moom mii la yónni woon ndigal li ci yéen. ngeen gàttandu ci mbégte. ngeen gàttandu ci mbégte. ak xar bu tàlli. ak xar ju pësteefu. ba defee ko nii mu kon nag lam leen daan seereel la leen di seerelaat. la leen di seerelaat. mooy dox leen mu ne dox leen rek yoon waa ngi noonu. ndax wóor na ko ne. ndax wóor na ko ne. bu seen yéene àggee. bu seen yéene àggee. lépp lu war ci dëkk bi rek. lépp lu war ci dëkk bi rek. da ngeen ko def. te yéen ngi ci yoon wa. kon mi ngi leen di sant. kon mi ngi leen di sant. ndax nee na yaa moom da ngeen ndax nee na yow sëñ Abibu yaa moom da ngeen a bokk Pastef. lii la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke seereel léegi. la Cheikh Abdoul Ahad loolu rek mooy li ne loolu rek moo nekk ci yow. mooy jëwriñ ju mat jëwriñ nga. mooy jëwriñ ju mat jëwriñ nga. ndax man ngaa maslaa ñëpp ndax man ngaa maslaa ñëpp te yàgg na woyof ñëpp te yàgg na woyof ñëpp lépp sa sa lépp sa bëgg sëñ Tuubaa liggéeyal ko te lépp nag sëñ bëgg sëñ ak liggéeyal ko rek ko waral soxla woo ci dara lu may liggéeyal sëñ Tuubaa ngërëmam lu dul sàkku ngërëmul sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko loolu tey ndax loolu du te ci loolu képp la la ñëpp xam nag. te nag loolu ma wax ci la la ñëpp xam. te njiit moom bu jiitoo. te njiit nag bu jiitoo. dox na mu war doxe. dox na mu war a doxe. ña ci ginnaaw ñëpp seenum xel dal ci moom. ña topp ci xel day dal ci moom. bañ na ko am ndaje sax bu ngeen ko defee. bañ na ko am ndaje bu amee. du ngeen nangoo génn ci xaalis jënd ndoxum naan. du ngeen nangoo génn ci xaalisu Tuubaa ci kanam jënd ci ndoxum naan. loolu mu ne su ko weesu ci ak leeral. sëñ Abdou Lahad lay sant bu baax. noo ngi lay sant bu baax. ci ni nga ànd ni nga ànd ak sëriñ Abibu ndax yàlla mooy boole. ndax yàlla mooy boole. la sëñ Touba waxoon ci diggam ak maam Thierno rek. la sëñ Touba seere woon ci diggam ak maam Thierno. yéen ñaar na ci seen diggante. yéen ñaar ñii am na ci seen diggante. ndax kenn kenn ci mënut a ñàkk ci liggéey bi. ndax yéen ñaar kenn mënu cee ñàkk ci liggéey bi. loolu suñu borom moo koy def. nag dogalu suñu borom la moo koy def. kon loolu pàgguteefuk sëñ Touba la. kon daal sëñ Muntaxa sant na leen ci liggéey bi. nee lim leen di gën a santaat moy ndigal lim len joxon mooy ndigal ngeen jàppale waa Maawu Rahmati ci ndoxum Touba. ngeen jàppale waa Maawu Rahmati ci ndoxum Touba. ak waa Ofor. ak waa Ofor. ko waxee rek. la ca xelam dal. la ca xelam dal.